ne ki nga xam ne moom mhm. euh, benn weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd maanaam bor la mm. waaw sursis mooy sursis sursis boobu nag mhm. sursis boobu nag refus d'obtempérer te moo ko ko may mm. moo ko indil donc yeneen délits yëpp kii di président bi daf ko écarté refus d'obtempérer mooy ki nga xam ne dañ ko tere nekk lii bu ko def mu ne da ko def mu ne da koy def voilà boobu moo tax ñu condamné ko un mois assorti du sursis mooy un mois yoo xam ne bor la du ko tëdd. du ko tëdd waaw. Mm. du ko tëdd ñu ngi nii di ko seen ndeysaan mi ngi mi ngi nii génn. bugaan mi ngi nii génne di dugg ci kaaf bi. Mm. mi ngi sol benn tiset bu ñuul ak jean bu ñuul pénitencier yi ñu ngi ko wër. Mhm. dugal nañ ko ci kaaf bi. et et comment tu l'as vu après délibération. waaw a serein il est serein depuis ce matin. il est depuis ce matin. Mhm. waaw gis waaw yeneen prévenu yi mais fu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi génnaguñu. Mhm. ñu ngi ci salle bi parce que ce sont les éléments du génie ñoom ñoo ceinturer salle bi. voilà et quelle a quelle a quelle a été la réaction de ces de moom laa koy laaj waaw kontaan naa ñu ngi fii di tàccu di fecc di yuuxu. parce que xam nga campagne bi comme voilà comme campagne bi jot na ko raw euh, ñeenti fan li ci des nag. dina ko mën a dina ko mën a wëyal voilà rattraper parce que moom itam euh, dafa bokk ci liste euh, sàmm sa kàddu te ñoom mm-hmm. ñëpp ñu ngi ah, foofu. non non seulement non seulement mais da koy rentabiliser mm-hmm. Mm-hmm. ci kaso. en bu génnee day gën a am maanaam day gën a am aura. Oh, moo tax moo tax ñu bëri jàpp nañu ni. boo nekkee leader politique laata ngay àgg ci yenn yenn oh. yenn statut yi. Mhm. foog foog foog nga dugg prison daal. dëgg la waaw loolu moom loolu moom seetlu la. seetlu la ku ko weddi laajal Sonko ku ko weddi laajal euh, Bassirou Diomaye Faye. de la prison il est leen di jig. voilà daf leen di de manifester notre joie. Aujourd'hui, le PDG du groupe des médias, le dirigeant du mouvement Zemsobo, de société, le PDG Bougar Dani, est libre de tout mouvement. Le tribunal vient de le relaxer deux fois. Relaxe au bénéfice du doute pour la rébellion. Relaxe total pour l'outrage à agent. Mais condamnation deux mois à du circuit pour refus d'obtempérer. avec 100 000 francs d'amende. On aurait pu le relaxer purement et simplement pour toutes les infractions. C'est notre conviction. Mais au moins, on a gagné parce que le procureur avait demandé trois mois ferme et 500 000 Cela aurait empêché mm se présenter aux élections futures. avec trois mois ferme six mois avec sursis comme on l'a fait avec Sonko on ne peut pas participer aux élections et le procureur voulait que Bougane Gueye soit exclu des futures joutes donc il y avait quelque part un désir un souhait des instructions pour empêcher le président Bougane Gueye d'être candidat désormais dans ce pays à des élections organisées, sauf pour législatives, les locales ou la présidentielle. Ce qu'on peut retirer donc, c'est qu'après ce verdict, Bougar Gaydani va rejoindre son équipe de campagne électorale. C'est vrai que le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Mais il va quand même, après avoir perdu quelques jours, au cours de ce camp électoral, il va faire ce qu'il sait le mieux, déranger les autres. voilà donc euh, Awa. Ah ah. yéen a dégg kii di maître El moo doon wax léegi. waaw mbégte la am. ginnaaw ba ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany mhm. parce que si dafa xat trop trop trop ba tax na pour nga am li nga bëgg sax jafe-jafe trop. donc le temps ñu jël yeneen euh, ITV yi. ñu bàyyi la nag antenne bi. voilà incha allah kon ñu jàpp ne verdict bi loolu la. Mhm. Euh, un mois sursis. voilà un mois sursis. ak cent mille francs amende. waaw un mois surtout bi refus d'obtempérer bi la ko amee yeneen yi dañ ko relaxer purement et simplement muy délit de rébellion bi ak euh, beneen bi. outrage outrage ah, dans l'exercice xibaar yi leer na jërëjëf kon u Ousseynou jàlloo ci suba ba léegi. mu ñu ah. koy toppal procès ba fële ca Tambacounda gannaaw ba ñuy àtte Bougane Gueye Dany nee na kon euh, àtte bi euh, daanu na léegi kon weer yu mu dul tëdd lañu ñu hmm. gàll ci ab mu doon daan ba noppi mu fay ñaar fukki junni. Hmm. Euh, ci alamaan. voilà mi ngi noonu donc je pense que ni c'est une page Euh, ku xam bugan xam ne nii euh, mën nga tey tey tey sax mën naa mën mën mën mën naa mën naa gontu wala suba sax mu xëy dem dem métti gi. Mhm. voilà parce que c'est vrai qu'il a perdu euh, quelques jours quatre jours mais bon après derrière. Voilà, mais non, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Donc, euh, il va s'y mettre et essayer tout de suite de rattraper le temps perdu. Donc, Bougangay Dani, libre de tout moment après donc le procès qui s'est déroulé au tribunal de grande instance de Tambacounda. Nous repartons à nouveau à Sédhiou pour y retrouver Bakary euh, Konté sëñ Bakary. oui euh, Cheikh Tidiane. Ah, jot jot jot ngaa dégg donc euh, Pape Ousseynou donc je pense qu'on a l'essentiel du côté de Sédhiou comment ça se passe. voilà fii ci Sédhiou Cheikh Tidiane li ñu mën a jàpp tey topp nañu waa coalition jàmm ak njëriñu mooy bu Amadou Ba. Mhm. tey Seyni Diallo maire de Dianamalaari nekkoon APR. moom nag mooy tête de liste euh, bu boobu boobule fii ci département bu Sédhiou fu mu nekk nii moom commune Diana la dëkk ci wetu Kolda foofu nag la commencé d'ailleurs pour tournée bu mu amal mooy euh, ci Diana Malarine si Diana Ba ci wudukaar fu mu nekk nii ay porte porte la nekk di def caravane moom mu ngi koy doore fu mu dëkk ci di pakaaw fuladu foofu nag la Seyni jalloo daal di commencé eh, campagne am di coalition eh, jàmm ak njëriñu ba Amadou Ba loolu nag eh, bu ñu si jógee dañuy ñëw ak beneen coalition boo xamante ne mooy coalition andi si kóolute ah. bu mhm. Abdou Karim Sall ñoom nag ñu ngi woon ci commune bu Marsassoum ak tamit euh, commune euh, toujours commune bu Marsassoum ak euh, benn dëkk bu ñuy woowee Marsassoum Santo bokk ci commune bu Djibabia. Mhm. d'ailleurs ñoom sax ñu ngi fay daje ak waa PASTEF ndaxte coalition PASTEF département te Ayib Daffé secrétaire général par intérim bu PASTEF nekk dikk ko jiite moom moo nekk tête de liste PASTEF fii ci département bi ànd si ak Oulimatou Bayo ñoom nag ak. Mariama Fatmata Mané kooku tamit mhm. nekk ci liste nationale bi ñoom fu mu nekk nii ñu ngi ci diwaanu euh, Djibouya ci dëkk bu ñu wooyee Marakisa foofu nag doléance yi mag la ayib euh, jot am foofu askan bi bu ñuy ñëwee dañ kene dañu am problème courant am problème ndox am problème yoon mhm. jafe-jafe yi métti lañu ñu nekk ci euh, fu mu nekk nii moom nag mu ne lu tax